الحمد للحق المبين من كان هاديا moy jëwriñ gi nga xam mom lañ boole ci gerté ga ña war jël gerté ga yew yew ko ci magasin ba képp ko xam dégg nga sa tur bi rek suñ Moodu Bousso nga andal ak Serigne Mor Dieng ak Serigne Baye Serigne Dieng Khadim Dieng babakar njay babakar njay ak ñimu andal ñi nga xam mo leen fi indi yéenay top ci ginnaawam Serigne lamb cham ala haji Cissé Mikke daw daw do do fi na Omar salihu Dia Souleymane Tine Souleymane Tine Alioune Ngom Samba Ngom Fallou Ndaw Fallou Ndaw Cheikh Badiane Bass Masamba Kan ñooñu lim ñoo dem ca ca mangase ca gerte ga képp koo xam ne limul na nag jëru mbay mbeng nga ànd dem ca tool ya bu kenn des ci nag na ñëpp def tudd président Déthié Diouf jiite ñuy dox wàllu jàmm ci àdduna ci Sénégal jiite parti bu ñuy visa les citoyens citoyen nag mooy ki dëkk ci dëkk bi ba pare xam na dafa war a defar dëkk bi ñaar fukki at ci ginnaaw muy 2020 dañ fi njëkk a ñëw euh, euh, daal di xalaat ne ñun sëriñ war nañ ko mën a liggéeyalee ci taxawu ndongo yi dajale docteurs yi dajale garab yi ñëw liggéey fii ah loolu wax dëgg yàlla sëriñ yàlla na yàlla yeesal yërmande ci moom wala yàlla yàlla nañu yàlla tax ci barkeem vraiment loolu touché ko at mu jot nañu di ko def ba association yu bëri juddu ci bu liggéey amee damay ñëw rek daal di fu ma dem def fa pare daal di dem waaye démb laa dajeek sëñ Ndiaye donc ci centre de santé bi wax dëgg yàlla ma gis ko mu sonn ak ñeneen ñi ci kanam vraiment ñu am yu ñu fa jëflante ci wàllu garab wax dëgg yàlla mu jur yaakaar donc ñu def ay masque dañu ndax dañ ne saxal set ngir wér kon bu fekkee ne moom xamal nañu ne wax dëgg yàlla eh, eh, gaañaa ngi fi ay ndaw lañu ndaw ku ko xam ànd xam ne day ànd xadar loolu moo tax ñu ne ko dinañ ñëw jàpp ci liggéey bi fii moo tax tey ci daara ji lañ njëkk a dugg démb ñu ci soxna isa bu ahlul café voilà donc tey ñi ngi fii kon nag bis bi tey luñ ci def rek jawrin ah kon nag xam naa ne bu baaxee rek ci yéen la jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu di leen ziar si ndigalu Serigne Saliou Mbacke am di wàcc si ndigalu Serigne Mabou Sa Ñing mi nga xam ne moo ànd anu, waa daaray Ngaabu fii tey jii nag ñu àndal waa opération oh. setal saxal set opération saxal set ngir wér loolu rek day ànd ak liggéey bi ndaxte mbirum sëriñ bi moom nii rek la te te gaa ñi fii rek la ñu rawantee te tayam gi day gàcce ëllëg ndaxte li sëñ bi waxoon rek di jaawale jëf kenn ak morom ja te kon lii nii da bok ci waxam jooju ci wax jojo la bok kon na ngeen japp ni yeen ngi ci biir liggéey bi te serigne bi jogu fi jogu fi bukk te du musa juk waxi nak déggin la laaj nak ku gis ni tool mel ni ren ku ko gis xamni serigne sëriñ fi xel kom nak ñepp xamni ne mouride la rawati na nak kep ko xamni ndongob tarbe nga yewo ci ëttub sëriñ Saliou Mbacke kon nak tay ji bo ñëwee ni and ak ñun li ngir di saytu nit ñi seen wér-gu-yaram ak seen set lolou fay yalla suñu borom bu ngeen ci am ëlëk yàlla ñu ko suñu booree boole séddale ñun ñëpp ci barke Serigne Saliou Mbacke ndaxte xol dafa sedd xol dafa sedd ndaxte lii lii lu rëy la tey jii ngeen ñëw fii ngir maanaam saytu saytu saytu gi rek maanaam li li njëkkaloo nekk tawfeex gi njëkk rek mooy maanaam xalaat ba nga njëkk a xalaat rek foofu la a nekk waxatuma ngeen xalaat ko ba ëlbatikuwaat jëfe ko kon koo jëfe ci barke Serigne Saliou Mbacke di ñaanal suñu jëriñ Serigne Saliou Mbacke am di mu yàgg fi lool te wér असलकम वरहमल गाँव में जाते हुए Euh, tey ji ñu ngi fii ci tooli Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke moom Serigne Saliou nekk ci daaray Touba Xelkom tey ji ñu am fi suñu jëwriñ sëñ Malick Ndaw sëñ Moussa euh, ñu laaj sëñ Moussa maanaam lan nga yëgee liggéey bi ak lan nga gis tey ak mbooloo meeg yooyu sëñ Moussa bisimilah euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk jullit mbokk taalibe ñu ngi leen di siyaare yen waa Ngabou Média TV ñu ngi leen di siyaare bu baax ci seen teewaay ci fii ci liggéey bi Xelkom jamono bi ñuy waxee yéen ñu ngi Touba ci magasin bi di wàccee gerte gi mel ne waa Ngabou ak ñenn ñu mel ni ñoom fii la leen féetale ñu ne ci liggéey bi waaye yéen gis ngeen liggéey bi ni mu demee euh, pësteefu na te barkeel na te gars yi gis ngeen pësteef bu ñu àndal waaw ku si nekk rek yaa ngi yaa ngi jaayanteeg sëriñ bi ci fànn ñu kenn mënta xam loo xam ne yow yaa ko yéene ci sa ci ni ngay dundee ci biir liggéey bi rek soo xam ne day sonn lool teewul mu wóyee la yëfi rek nekk ci rek ñu ngi sant nag bu baax sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Saliou mu gën fa yàgg di gën maam di gën a wér euh, di sant sunu jëwrin sunu sëriñ sëriñ Saalihu Mbàkke ibnu sëriñ Amdi Mbàkke Daaru Salaam euh, nga xamante ni moom moo jiital daaree Ngaabu ma nga ci daara ji ba tey te moo ànd ak ñun tey ñëw ci liggéey bi ànd kook ñun ba liggéey bi toll fii mu toll ñu koy sant di ko gërëm bu baax am sa kilifa yebalu la toog waaye li mu def mooy dalaa yebal ba noppi ànd fa ak yow nekk nekk yow ci biir liggéey bi takk takk ndiggam ni nga takk ndigg di liggéey ñoo ngi sant bu baax di gërëm gis ngeen kon ni mu demee waaw àdduna àdduna ko dajee xel koom nim daan mel bu ko rawut yéesu ko ma fi ma waxee yow nit nit ñi koo ci gis mi ngi ànd ak bëgg goo xam ne ak aas yoo xam ne di rëcc loo xamante ni tey ji defe na ne te ji lu bari da koo rawoon ci xel koom bi mu koy dabuwaat am na ñoo xam ne mosu ñoo ñëw xel koom ñëw nañ ñu ngi sant bu baax nag ñi ànd liggéey bi ñoom sëñ Modou Bousso sëñ Sidi Diagne ak jëm yow mii taxaw xamante ni boobu ba tey yaa ngi te yàqu dara ci walu média bi nga nek ñu ñu sant bu baax di leen gërëm dina wax ne liggéey bi daal ñu tollu ñu tollu ngi mi ngi tollu ci ñu ñoroon gerte gi ni di ko duggal ci magasin bi ngir wajalat ko mu demaat fu ko sëriñ bi ma sha allah ki ngeen gis moy jëwriñ sëñ Moussa nek nit ko xamante ci nit ku jambar la vraiment ci liggéey bi kon kaddu yi nga am si rotal nako mi kaddu yo xam kaddu soñal kenn ku nek war cee mën a gis sa bop liñ leen waxon rek duñu tay duñu son ngaabu media TV and nañu ak yeen liggéey bi waaw léegi ñu dugg ci biir rek daal dafa laal yeneen mbokki taalibe yi bisimilah waaw kontante ak ngëtte di wax ne ñoo ngi sant Serigne Touba bu baax a baax a baax tur bi tur bi Serigne Mangane la macha allah waaw macha allah kontaan nan daal bii mooy ñaata yoon bi ñëw xel ko waaw bii mooy sama deuxième fois mu ñëw xel xam waaye kontante ak ngëtte rek waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi sant yàlla di julli ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaana Cheikh Mahamadou Mountakha mu yàgg fi loolu te wér di ñaana sëñ xam sëñ Saliou mu yàgg fi loolu te ndax lii namoon nañ ko murid gën nañ fi ñu ngi sant yàlla baax a baax liñ ci réccu kay mooy yéex ga ñëw waaye nag ñu ci sant yàlla di ñaan suñu seex mu yàgg loolu loo yëg tey loo tey loo yëg sant sant rek macha allah koy fàkkar ñi ar suñ ko waaw sant koy fàkkar ñi daal laay daal ma nag nag xam nga dañ ne woon nga am média moom du tàyyi waaw dañoo bëgg a ànd ak yéen liggéey bi te bëggoon naa xam maanaam tur bi naka la ak foo jóge ak foo ak lan nga yëg tey ci liggéey bi Mor Dieng jóge ba ngaagu fa ngaagu média mi soqe koo fa lañ bàyyi waaw ñu sos ñu nag ñu fétu fi ci magasin bi pour aj ngooñ ni organise ana ko jërin Modou ak ñom jërin Serigne jaay ak jërin Mbaye Mbeng ñu bay ko ba Ndakaaru ak jërin Sidi ñii jité Ngaabu media Ngaabu media dafa na ba mu juddoo yàggut waaye mel na ni mi ngi def différence ku mu toll ñu koy ñaaral moom Ngaabu media ci borom euh, euh yëkëti ko ba egg ba moroomu sid yëpp egg wala sax mu suñ leen di barke seen dégg nañ kontaan nañ ci jëwriñ sax jenn wóolu bi mu ñu wóolu ba teg ñu ci bi magasin bi ñu yor li jëm ci wàllum ngooñ bi waaw moom jëwriñ sax ni ñu ngi ko sant sant nag ñu jóge ngaabu ñëpp di sant Serigne Saliou mi nga xam ne mooy jëwriñu ngaabu jóge ba ngaabu dagg yitte yëpp te warloolu wuñ ko ak moom mënoon naa toog rek ca daara ja teewul li ñu séq ak moom yëpp nim ñu waree dara man xam moom naa ne mëneeguñ ko sax ni ñu ko bëgg danañ ko defe nu sedd xol daal suñu kam kàttan daal ko ñaanal moom suñu sall moom suñu am dem daaru salaam mu yàgg fi lool am santé de fer wér gi yaram dund mille ans sans ordonnance amul benn consultation barke Seexul Xadim waaw biir nañ ci Sidi nag Sidi Sidi bëgg nañ moom moom mënuma wax ci moom bañ murid xoola ma fees xoola ma fees bisimilah mbokk taalibe waaw asalaamaaleykum di nuyu mbokk taalibe yëpp di ko naan ci liggéey bi di wax daal moom liggéey bi rafet na trop di ñaanal sëriñ si am sëriñ si mu yàgg si loolu ta ànd wér di ñaanalaat donc yëpp nga xam ne liggéey bi rafet na loolu sant leen gërëm leen lii daal yomb liggéey sëriñ Tuubaa yomb ba ñuy ndaw lañ ci nekkoon dem ba doon ba ngërëm sëriñ Tuubaa fekk leen bi ñu dem sëriñ Seex woo leen ñu ñëw kon nag dinañ ñaanal bu ñu génnee bi gën yokk tooy dee ñu ñëw yi gën a bëri yi yoon jerjeeg ngooñ bi di ñaan daal sëriñ bi gën a yombal lépp ci barkeb sëriñ Saliou jërëjëf Mate ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay delloo ziar di la sant baax di taxawaay di sant Serigne Saliou baax a baax ci yitte gi ñu yëg ñu ak taxaw gi si liggéey saa su nekk liggéey ni nga gisee ni nga gisee rek mooy dañoo ñëw fii liggéey sëriñ bi saa su nekk ni nga yàgg defee mooy jëmal sëriñ ta ndax sëriñ mooy yar def ñun lépp liñ mën defe moo tax saa su nekk lépp la am nekk dañu ñëw ngir teewee ko ñu def si fas bu ma sëkk sëkk waaw département mën ta ñàkk si ndax ay dong fu ñu jàll ak tamit yëg-yëg yeeg bëgg-bëgg yeeg ak tamit yéene yi mooy tax waaw développement mënut a ñàkk waaye dañ ko sant sëriñ bi rek pare saa nekk lépp def ko nu mu gën a rafetee si bàkk suñu saare xam naa ne bu ma bi mooy ñett lañ joxe gerte gi nekk xam naa ne gars liggéey rafet bi ñu siy gis moo tax saa su ne ñuy séddale di ñu ko jox moo taxee loolu dañ si di jox boobu ñu koy jox nga xam ne lépp sëriñ bi ndax mënuñu amuñu waaye tamit dañuy jéem rek waaye tout tànk lañ ñuy jéem mooy bu ko defee ñu wëyal liggéey bi rek mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo yor saakoy gerte yi xam naa ñu leen di laaj dana diis lool ngir saakoy ñor mbokk maa ngi leen nuyu. yéen a ngi ci liggéey bi. waaw waaw kon ñu bàyyi la nga yegg ci kaw rek. waaw waaw. maam Cheikh jaxate di dongab tarbiya Serigne Cheikh Ahmadou mbak moom Serigne salim bismillah serigne mam A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi nuyu wa cheikh bi di Ndiap Ndal TV mo len di nuyu bax bax di rafetlu sen liggéey tey ñaan sa borom def fini deg mbollem mboolem si France 24 ak yëpp ngeen fofa fu kawé kawé sax noo ngi ñaan sa borom defal ñu toobeex ba ñun ñëpp ñu man fee del ci wat di wax na nak liggéey bi nak mom dafa euh, dafa démé no xamé ni Euh, maanaam jullit ñi ñoo ko bëggal seen bopp muy xel koom di liggéey Serigne tubaa dafa nekk loo xam ne maanaam murit yi dañ koy namm chaque jour moo tax na gis nga mbooloo mi nii euh, nii mu demee nii wax dëgg yàlla euh, mënta ñàkk ndax Serigne Touba moom moo ko moom moo ko wane tey Serigne Saliou moom dafa nekk koo xamante si nii maanaam jullit ñi ñoo ko bëggal seen bopp moo xam muy murit xaadir laayeen tijaan ñëpp ko bëgg dafa doon koo xam ne nag maanaam moom ñëpp bëgg mbiram moom chaque jour rek Euh, maanaam day gën di foofa ca kaw a kaw nooy ñaan nag saa borom defal ñu tawfeex ba bépp jéego bu fu waay def ak lépp lu fu waay liggéey rek nooy ñaan suñ Tuubaa euh, dencal ñu ko foo xam ne yàqu dafa yegg noo ngi nuyu ñëpp nag tey ziare ñëpp tey ñaan saa borom faj aaju yëpp barke Cheikh Saliou. di am internet yi comme ni ngeen ko waxee woon Mouhamed mi nga xam ne euh, boobu ba léegi moo nekkoon si kàddu gi di leen jot li li nga xam ne moo teewee fii ci xelkom ku gis xelkom ne daari Serigne Saliou ku ko dégg. boobaak léegi ñu nekk ci wàccaa yi mbokki taalibe yi ñoom ñi ngi ci gerte gi ñii ñi ngi ci ngooñ mi waaye ñu ànd ak mbokkum taalibe mi nga xam ne boobaak léegi mi ngi liggéeyal Serigne Touba ci jaam ñi rawat na mbokki taalibe yi nga xam ne wuy si nañ xel Xelcom muy ñëw di joxe ay garab euh, di joxe euh, li nga xamante si ni mooy ay masque waaye yooyu yëpp nga xam ne euh, lu baax ci liggéey bi la loo xam ne loo xam dana la mën a aar ci liggéey bi bu ko defee kon Mouhamed ak ñu topp ñu àndandoo dugg ci biir liggéey bi xool li nga xamante ni mooy doxinu liggéey bi ci yi dégg après garab pratiquement yi dañ koy màcc nag. ah xaaral ñu ngi ñu ngi nii maa ngi leen koy jox nii am nañu kenn joxe ma am. am. ba tey mi ngi nekk ci di joxe masque yi ak li nga xamante ni mooy euh, garabu Fatima yi waaye di joxe waale lépp loo xam ne rek euh, euh, lu paax ci liggéey bi la ngir boo ko defee liggéey bi dana la mën a aar ci poussière beeg yooyu. jërëjëf Mouhamed kon bu ko defee dañuy dégg suñu micro mbokk taalibe yi nga xam ne boobu ba léegi ñoo nekk ci ngoon ñi di lii sang bi tey maa ngi leen di ziar. Ah, yéen a ci liggéey bi. Ah, ah, léegi ni gisee liggéey bi. waaw sant rek. dëgg yàlla am na pastef lool lool lool lool lool daanaka yaa ngi ci liggéey baa ngi dox macha allah. nga fàttali ñu tur beeg sant bi ak fi nga bàyyi ko. Mafal Ndiaye Ngaye Mexe. kañ ngeen ñëw fii ci tool yi. Euh, tey suba nag ñun lañu la ñu ñëw. ndax dañoo nekkoon ci tey liggéey bi. tey daal ñu ne nañ ñëw barkeel ci liggéey bi. Mm, mm. maanaam Serigne Saliou moom mooy suñu lépp. waaw bu wootee lépp lu nit jàpp war na ko mën a bàyyi te ñëw euh, wuyu mm. ndax liggéey su bopp moo amul sonn te dañuy yàlla na yàlla nangu amiin amiin jërë ngeen jëf baax jërëjëf Mouhamed kon bu ko defee ñu wëyal liggéey bi rek abis ci biir mbokki taalibe yi nga xam ne boobaak léegi ñu ngi doxal nekk ci liggéey bi di liggéeyal gaa ñi yi jàppoo parla yi nga xam ne ñu ngi décharger camion yi tamit nekk ci boobaak léegi di ay jàmbaar di doxal lool waaye jàmbaare lool bu ko defee waaw bu ko defee kon ñu àndandoo rek uh, wéyal liggéey bi ci biir fi nga xam ne mooy xel xelkom uh, ci daara ji di daaray neuf di Touba xelkom mu mel ne ñu ngi nekk ci décharge ngooñ mi di ko dugal ci biir magasin bi waaye murid yi ànd ci ak mbégte murid yi ànd ci ak fierté ci liggéey bi duñu sonn duñu daw duñu daay duñu tal lekk duñu tal naan waaye loolu lépp Serigne Saliou Mbacké moo ko kii bu ko defee mbokkum taalibe bi laay xëcc rek dépp ko sama micro uh, mu wax ñu li nga xam si ni moom la gisee liggéey ak kañ la ci ah, liggéey bi de moo ngi nii rek liggéey moom dañ naan jërëjëf Serigne Touba rek waaw ñu xamni lepp lepp lepp Serigne sëñ mako waral da fay sëgg sëgg góor yàlla ñu liggéey di contane di mbëkkee xamni borom jamono mako waral ñëpp bëgg nañ ñëpp contane nañ dal xamni Serigne Saliou moom dafa fess xol lepp lu ko ada defal rek dañ ko xeeb waaw ñu fassé liggéey rek ba ngoñ ñëpp dugg ba jeex ñu doog a inshallah incha allah rabbi nga fàttali mbokk talibé yi yi seetaan tur sant bi tur bi waaw nga bàyyi ko ma la njaga bay ma nga bàyyi ko ngaay mexe waaw ngaay بهائي براعة المختار ليس تقفى إلا على من بنكامل يخفى